ak geste bi mu def nii vraiment ñëpp a ko saluer ñu ngi koy jaajëfal bu baax Amady vous avez la parole. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi toog ci salle bi ah ñuy góor ñuy jigéen ñuy mag muy ndaw man kontaanu ma quoi non ndax tey ñun li ñu dal man dëngay laa dëkk man dëkkuma géej a maay dëkk dëngay laa jógee. dama demoon entraînement damay doog a yeewu Fatma moo woo wax ma ko démb ma ne damay ñëw assister li tax may assister nag lenn rek laa am muy jullit laa la rëggee jullit la dëkkuma Géejawaay ay adversaire laa fa la ma def tey napp boobu ko dalee ñun lu ñu war mooy quartier yi fii gisuma fi koo xamante ne parcelle xanaa kenn laa muy Serigne Ndiaye amul waa Pikine. amul waa Ngor amul waa Yoof amul waa Yaraax Pape waa non boo dégg Pape mooy géej waaye dëgg la mooy Pikine dëgg la mais maanaam mbëri laa tax muy wax waroon na yow ma ñoom assisté ah fii ñëpp a nekk si contrat fii ñëpp nekk si contrat ah. ñëpp ah. di bëri di entraîné di dallu di récupéré am de la de guerre deful yëfu njublam de nattu bu jóge suñu borom dal ko rek la te mën naa génn léegi man mu dal man baa mu dal keneen te li am importance mooy yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga yéene sa bopp yéene nga keneen ne nga mën a doon am jàmm am julli mun ko seetaan mun ko seetaane suñu bopp lañ seetaan di ala géejawaay li ñuy wax géejawaay benn bopp nañ jóg autorité yi nañu jóg jàppale booy bi waaye tàcc na loolu waaye am na solo fii kenn mënul suñu borom rek moo mën fii ku yëpp teg ku yàlla teg loxo moo fi ne ak ku yàlla dimbali yéen mën na nag laay wax ak yéen géejuwaay rek rek rek rek rek waroon naa mën a soutenir la guerre bu génn mais dëgg laa wax man du ma fen dëgg man koy jox moom dépense man maa jox sama bopp dépense mais dama ne la géejewaay rek laa la wax waxuma waxuma Tëngéej waxuma Mbao waxuma Pikine waxuma géeja waxuma Parcelles damay la géejewaay li fa nekk waroon na am na jàppale seen doom ndax la la dëggee ah xamaluma ko dara de fa dëgg ne yàlla ndax li gisante bara moo juumul ñaari yow laa ko ma si gis si àddina jaxlan nii kon donc li am solo mooy weer a ngeen torop yéen waa géejewaay man waru moo ne ñëw fii toog non damay am lu may communiquer waru waru ma man tëj laa dëkk dafa sori damay taalal sama oto dem ñibbi mais géejewaay dama na la ñoom rek ñoom rek kese day duggoon génne duggaat génne barki yonente yàlla mu mag waa ji génne. jërëjëf tàccu leen ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf am na solo.